ayca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet Lutte TV Mouhamed nag ndogu partagé la ñu wax wala ñu ne rek ndogu mbër te nag ñu ngi fii kër Baye Mandione ah, boo xamante ni te dañ fi gis ay nitam gis fi ay am di ñu naan ko Baye Mandione Senior mu woon nag ah depuis combat am dafa loolu nag li ñu naan dafa dem woon yokki cere doole ñeex champion ginnaaw bi ma la nuyoo rek di la ziar di ma internet Lutte TV yëpp ah? waa Sénégal maa ngi lay fay Bokar di nuyu sa caméraman di nuyu Lutte TV ñëpp waaw di leen wax ni yéen a ngi caaray fas yéene joxe xam nga ndog yi di baalu àq ñëpp ñi nga xamante amal na leen àq ñoo ngi leen di baalu bu baax a baax a baax di leen wax ne àdduna moom amul solo waaw ñun nee si làmb si làmb la na bu ñu si jógee jógee nañ ci. waaw. Uh-huh. mais ma ne moom ku ko xam-xam ko ci ci diine ku bëgg diine maanaam foowee wu ko kafe ko benn yoon. waaw nit ki moom si la yar rek boo màggee loolu ngay xam sam papa dañu see yar bu baax a baax a baax ndax ku xam sam papa xam ne tàggatu Seydina Mohamed la woon dafa daan dafa jàng ba ne ar mag yëpp xam nañ ko ñun loolu lañ xam te si la ñuy dee te si lañ màgg kon tey bàyyi ma ñoon bu defee lii wareefam la daal. wareefam da ko invité mbo am di jàmm yëpp. Euh, naka koor gi yaa ngi woor. a woor lu may teree woor man may doomi jullit man bu du weeru koor sax damay woor waaw. c'est que mbëri na daf si woor parce que dañu naan duñu bëgg a perdre seen forme ak yu demee noonu ah, diine te xam naa li tax man ma ne si diine kon du ay weeru koor ak yi ak yooyu xam nga lu ma teree bañ a woon ndax bañ a jeex ak yooyu noonu man lu ma xam la ta di ko def ah. sa diggante ak Njoon. waaw Njoon sama papa la sama mag la ñu bokk baay mais taxawaay papa la taxawee si man man tey namuma dara lépp moom la ma koy sant bu baax di ko gërëm ndax bu mag yëpp defoon ni moom kon Sénégal jëm na kanam man namuma dara li may may sax du ma nga fay si làmb kon kooku aw ma fayam ma koy ñaanal xam nga. li mu bëgg ci man yàlla defal ma ko moom li mu bëgg ci carrière am yàlla defal ndax bàyyi ma ñoon moom du sonn ndax tey mënoon naa ne sama mag nii rek xam nga lijjantiwu ma peut-être yi peut dafa ma toog damay setal damay damay wax le naaj si moom mais daf koy dund ak man ba caare ñëpp xam nañ maa ngi koy sant bu baax bés nag am combat bu rëy digganteem ak Zarko ndax sa xel dal na ci combat boobu. bañ a dal ku dul Zarko soo gudduñ toll ni bàyyi ma ñoon mën na laa daan du nuyu Zarko su ma mag la moom tamit di ko wax ne xam nga làmb la rek ay ay simili la xam nga dara jarul mi ñaaw maa ngi ñaanal nag suma mag bàyyi ma ñoon yàlla may ko ndam lu rëy si kawam. si kawam côté xeex bi nag yow est-ce que tiitaloo si sa waay donte bàyyi ma ñoon sax la ñu jàpp ne mooy favori ci xeex. waaw kon kay jeex na bàyyi ma ñoon ku koy wax waxi xeex moom loolu ay retaan la rek Zarko daal na waaj ñu waaj ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam si kawam lam moom kenn du ko bëri te ñëwagul. man maay entraîné rek di déglu di xaar promoteur yi. man Gambie falaa laa dëkk dama fa am ay mbokk ni ma amee mbokk Sénégal noonu laa amee mbokk Gambie su may nijaay ak su may bàjjana ñum ñoo ngi fa di leen nuyuwaale en passant. ngeen gis Gambie mbëri mbër boo nee prix rek mu dem Gambie. non man bu nekku noonu comme mbër sax damay dem Gambie ndax man Gambie samay mbokk ñoo fa na sama mag dafa am kër am fa jabar sans comprendre sama nijaay nga fa mais tamit Gambie dafa neex a boo demee da ay dallu kenn du la sonal xam nga waaw dundu gi seerul tamit comme par rapport ak fii. par rapport maa ngi lay kon xam naa Sam mu ngi lijjante combat yi. Sam day saral kii yow ak fils de Batling war ngeen mën a laale tas yaakaar. Ah, yooyu yëpp ay combat la parcelle ah. xam nga ah. lu jor day yomb ñun moom amuñu problème bëri fi maa leen daan waaw kon su ma jógee defee damay xoolaat leneen loo xamante ni su ma ko daanee naa nekkaat fu ma nekkoon rek waaw yee maa ngi lay bëgg jaajëf nekk ak Sam mbay wala nga ne Sam production rek doom day laay bu def Sam ginnaaw bi ma la nuyoo rek di lay ziar di la baalu àq weeru koor bi bàyyi ma bàyyi rek nga nuyu waa TV ak waa Sénégal Bokar ñu ngi lay ziar bu baax euh, di leen baal wax bu baax di baal wax waa Sénégal yëpp rawatina axlu làmb ji ni nekk euh, di nuyu waa Lutte TV di la ziar bu baax di nuyu Mohamed di la ziar di nuyu waa Fallène fii ma teew tey muy kër Baye Mandione di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. sama koor gi moom xam naa ne am na sax journée booy waajal waaye ak koor gi moom xam naa ne gars yi ñu ngi togg si suuf daal. waaw ñu ngi wax dëgg yàlla ñu ngi jëm le 29 euh, mai diggante Batista ak Fils de Max. ñu ngi jëmaat ci beneen journée aussi boo xam ne amagul date muy ndigal ak euh, bu laal ak yeneen journée yoo xamante ni daal waaw ñu ngi koy waaj mais problème mu date lan am pour pour l' instant waaw. tey nag Baye Mandione invité mbokkam invité am di jamam yëpp nga ñëw teew si ñu bëggoon xam rek sa diggante rek Baye waaw lii moom macha allah lii lu lii lu rafetlu la aussi que lu yàlla gërëm la parce que tey lii mu fi dajale nii si ay nit ñii ñëpp ku si nekk am nga ay kër. xam nga wax dëgg yàlla am nga foo ndogoo mais dafa doon lu rafet loo xamante ni tey bu ko defee ñu dañuy ñëw dooleel ko waaw dañuy ñëw dooleel ko ñun ñu dëkk ak moom xam nekk moom ay frère xam nga euh, bokk ak moom benn deret tey lii bu amee ñun ñoo fi war a njiit moo tax tey dañoo def suñu warugar rek ku ñu fi gis tamit maanaam waaw lool la daal aku dëkkandoo ngeen di waslu waaw lool la rek kii moom maanaam fu mu ne rek ñun ñu ngi fa parce que borom xol bu rafet lañ yoon waaw wax dëgg yàlla man mi di waxee sama mag la ñoo bokk benn deret tey bu naawoon léegi ma naaw waaw tey moo tax muy làmbam ak lu mu mën a doon rek ñoom ñëpp dañ ciy taxaw xam nga sonn ci lool parce que benn deret la rek maak moom ak Pape mi xam nga ñoo bokk benn deret ak Koulibaly fay wax dëgg yàlla loolu yàlla def na ko pare xam nga yàlla génn ma fii man nekk promoteur xam nga teewul duñ duñ teewul du ñaaw daal leen koo rafetal ñoom it heure bu ñu amee bés ak lu leen mën a taxaw rek man leen koo jàppale incha allah koy def dañ ciy tax rek bu soobee yàlla. maa ngi lay jaajëfal. mais ñu ngi kontaan bu baax ñu ngi rafetlu liggéey bi aussi. na na yi xaar daal le 29 mai. non na sa gis lu yéeme ak Batista. ak combat yu am solo yi. spécial bi ne ci euh, gi ak euh, kii. Boy Sadio Boy Sadio. bu ak euh, yéen bu diis. yéen bu bu par bu géej waay. combat am solo yoo xamante ni le le 29 daal dina neex. incha allah maa ngi lay bëgg. jaajëf waay. ayca Mouhamed ba léegi rek ñu ngi nag ak Ousmane Diop man ne Ousmane Diop dama xam ne ancien gloire la wala du ancien gloire parce que mu ngi ci forme ba léegi Ousmane maa ngi lay ziar. ndax nu kazaalika ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. koor gi. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. baalu àq baax baax a baax. tey nag Baye Mandione moo fi organisé nag ay ndëgu nga ñëw teew du ma la laaj nag lu waral teewaay bi parce que ku la xam xam ne yow ak Baye Mandione yéen a euh, waaye li ñu mën a wax rek si njoon njoon liñ ci mën a wax bari na ndax lii du guleet yàgg na koo def njoon ñëpp ay xaritam lañu ay am bi jàmmalam surtout xale yi ndaw yi moom ñëpp la boole njaboote yàgg naa def li du tey rek njoon mooy mbër moo xam ni mansion spéciale ci ma Mandione euh, royukaay la tamit boole ci parce que lii ci weeru koor dafa baax dafa am njariñ dajale doomu aadama yi jox la ñu lekk ñu naan ñu kaf ñu reetaan moom moo xam li mu bëgg yàlla sunu borom defal lii lu tey rek de te du si koor kese day jékki-jékki rek éviter gars yi ñu doon sama kër dem jënd xar rey gars yi lekk kon moom mansion spéciale dañ koy ñaanal yàlla li mu bëgg moo xam yàlla na ko sunu boroom defal te li mu bëgg ci làmb tamit yàlla na ko ko sunu borom may. nag bés bu rëy muy digganteem ak Zarko nag mu war a confirmer combat boobu ndax sa xel dal na si. non dal na ci ndax maa ko gis mi ngi entraîné mi ngi dallu mi ngi lekk mi ngi nelaw moom bu dee entraîné rek kenn mënu ko njoon muy entraîné rek benn mbër mënu ko barke baaba kër si te ko dina xam ne njoon mi ngi entraîné. bu xeex bi ñu siy coow. njoon kan moo koy tëkkaleeb xeex beneen mbër njoon même bu mënul woon a xeex mu ngi aw ak fitam te ci aw fitam lay bëree ci aw fitam lay xeexee njoon ku ko dékku ci xeex rek danga ngaa oo naar ci goxam soow mais xeex mooy métier am côté xeex moom tiituma ci non si lan nga ne. maa ngi nii ci lekk promoteur yi wax di bàyyi rek waaw Sambay mii laa bëgg mu tëgg ma waaw Sambay Sambay mii laa bëgg mu tëgg ma comme gaa yaa ngi wax di bàyyi dama tëgg rek benn. boo yëpp bëgg naa boo yëpp bëgg naa booy bëgg naa classe ak Mbaye Diouf geek ñëpp bëgg naa. Mbaye Diouf moom combat bu ne. rëy la ndax bëri woon na bëre woon ngeen woon na 2006 ma éliminé ko te doon na a bëre waat. pare nga pour may ko chance. yeneen i xale. waaw. loolu dinañ si ñëw seq waxtaan bu yaatu. jeex na tàkk ma ma Adama Diouf ñoo ñëpp ngi fi te mënuñu. ñëpp a ngi fi waaw na ma Sambay seet si ma tëgg ma wala nga soo ñëw seet si ma rek mu jeex tàkk. kon loolu yàggatu. jaajëf Mouhamed ñoo ngi nag ak Coly Faye ah numéro 2 borom caaro yi moom tam kenn mënul wax caaro wala mburu caaro yi te boole woo ko si mbër maa ngi lay fay di la ziar lu bëree bëri. koor gi koor ñu ngi si kawam rek. baal ma baal la baal ñu. yàlla boole jégal. ami ñu teew ko ay déwén déwén. koor koor gi ñu ngi si kawam di ko gérer rek. yaa ngi woor. waaw maa ngi woor waaw. ñaata fan nga am tey. ah tey nag du ma compter jour mais maa ngi woor moom. mais à ñaata nga am. ah man ba en tout cas ñi ñi mujjee woor ndool. la samedi nga woor wala dimanche. dimanche la woor waaw. noonu la demee ñu ñëw fekk la fi nag ndogu mbëru uh, ki nga xamante ne moo di Baye Mandione ñu bëggoon nag nga wax ñu tuuti rek si Baye Mandione si jëmm ji ma Baba Ndiol moom mën naa ne man li mu def si man bari na waaw li mu def si man bari na yàgg na moo ma yar kër gii man fi laa defee lépp dinaa cinq ans xaw ma six ans man Baba Ndiol Junior ñoo bokkoon benn néeg bu neuf francs néeg bi suuf man moom mu nekk nii man moom fi nekkoon yaakaar naa soxna moom mu jëlee si kër gi quoi am soxna moo tax ma fi. ci kër la nga bokk ci kër gi laa waaw. Mm. mais li nga a wax si rek en tant que Baye ma ñëw en tant que a moom lu ne nit ku baax ni ko yëg doomu aadama la alam da ko boole nit mën naa ne bu tardé ba heure bi ay doomu aadama ñoo ko tardé waaw dëgg fa yàlla xolam moo ko tardé mu jub bés nag combat bu rëy digganteem ak Zarko waaw loolu suñ combat la du combat am de suñ combat la ñun baam ñoon Zarko du combat baam ñoon ñun suñ combat la suñu borom da ko ci may ndam incha allah rabbi ci lépp bëre bi lépp loo xalaat rek day agressé de loolu moom la concerné bandi géew la déggoo loolu moom la concerné laa la ñun ki indi lañ xam hmm. xam nga ne ko yox bandi géew moom ay xeex ak ay affaire yooyu si baabu ñoon si baabu ñoon ngay ngay ngay tourné. yow nag ci lan nga ne. man maa ngi man maa ngi nekk si li ma nekkoon rek. ma déggoon ne da ngaa musul voyagé. di waajal combat bi. musul voyagé lépp a fi. maa ngi fii. yaa ngi fii. fees fi dell di waajal di waajal waaw. dégg nga keroog adversaire li mu wax. Ah, dégg naa ay waatam bi waat Serigne Sall bi ñaar toogoon. jour yi yaakatul lañ rek. waaw da koy yóbbante. li ma koy yóbbante da ko ñaanal jàmm koor jàmm rek. waaw maa nga koy jaare moo Baye Fallam yëpp maa ngi leen ziar ba fi nekk maa ngi seen wàccuwaay seen am bépp mafia Grand Dakar ñu ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen ziare di jox seen di leen baal àq di leen baal àq waaw di leen ñaanal koor jàmm ngi lay bëgg. bëgg lu bari. Aïcha Mohamed côté yooyu la Ameth Deme da koy tere ah champion bi la. waa delloo ziar comme ni ko waxee rek côté yooyu la Ameth Deme da koy tere mais maa ngi ziar ñëpp di baal ñëpp di wax déwénati quoi ñu téye kay yu bare bëri naka koor koor gi waa gis nga ñoo si koom fi mu ne nii ñoo ngi si mbartal bi quoi waaw ñu si mbartal koor gi tey nag Baye Mandione moo am ndogu nag invité jaamu yàlla yi invité waa Thiaroye invité gox bi yëpp tey nga ñëw teew lu ñu mënoon wax tuuti rek si Baye si si si Baye Mandione waaw Baye Mandione wax mention spéciale ndax da di xarit nekk suñu doom lay nekk ko am yëg-yëg mu nekk nit koo xamante ni vraiment xol bu rafet la yor man na maa wax ne ñu ñëpp moo ñu gën parce que yéene lay demee kon donc bu amee bés bi mel ni ndogu muy combat dañuy bàyyi suñu lépp ñëw teew surtout nag muy ndogu quoi mu nekk loo xamante ni ay xéewal kase la di ko ñaanal tamit yàlla defal ko jaam ubbil ko say xéewal bu baax a baax li si kanam nag mu leer quoi. li si kanam nag xam naa ne moom looy naan gudd gu si tagul la parce que nag Zarko la am te gis ngeen Zarko retour bi mu def dafa mel ni nag tey dafa ñëw pour confirmer ko combat boobu noonu ndax sa xel que Baye man na maa wax ne Zarko tamit champion la naanaan la mais ñaari retour la yoo xamante ni def na preuve lu yàggul dara baam am tamit def yàgg naa def preuve mais incha allah combat bi moom sunu combat la te incha allah bu ñëwee dina xam ne sunu combat la. non côté xeex bi moom amuñu luñ siy tiit vraiment waaw amuñu lu siy tiit parce que Zarko nekkul mbër waa am te ni champion la nag mais nekkul mbër waa am te ni am na lu ñuy calculer si moom. non nekkul danger nekkul danger vraiment. agresseur non Zarko Zarko xam nan ko bu baax xam nan ko bu baax mais bés bu ñu demee si biir géew bi njoon ku ko xam-xam ne tamit gaynde la ndaanaan la liñ koy wax rek incha allah le jour bi mu def nànk rek. yow nag ngi si affaire yi ñoo ngi si entraînement yi nekk suñu ruux rek comme d'habitude di waajal di di waajal maa ngi lay nan bu baax côté yooyu la